ak production ñoom ñoo tëgg combat Gris 2 ak doomu daangu hmm. moom mu ngi doog a dugg si ñuy ay xale yoo xam ne tamit vraiment ay doomi Sénégal lañ yoo xam ne ba ñëw ci làmb ba tey lépp lu ñu indil amateurs yi rek lu neex lay doon hmm. ndax na grider doomu daangu ñëpp a ko bëggoon hmm. maanaam ñëpp bëggoon làmb làmb jooju amateurs yi bëgg ko promoteurs yi bëgg yàlla dogal ko ci ñoom te duñ ci boole wax ju bëri dañuy liggéey mais dañuy naan tekk daal la ñuy def tekkaaral bu bëri moo tax ba ñu bëri sax euh, du ñu xam kan moo tëgg combat boobu. fekk wax lu tuuti jëf lu bari rek. waaw voilà loolu kan doon wax. ñoom noonu la ñuy doxee. Euh, Bakary asalaamaaleykum wa rahmatulah ma bàyyi la nga nuyoo. waaleykum salaam wa rahmatulah. Babacar ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam. Mm-hmm. maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di yor sa wàccuwaay di nuyu Grand mm-hmm. di ko ziar bu baax. Mm-hmm. di ko bëggee aussi bu baax a baax. di ko wax ni ñu ngi seetaan émission bu baax ñu ngi gis intervention yi mu ngi rafet mhm. di nuyu aussi le grand champion Alioune Seye 2 sama waji ji mhm. di féliciter aussi ci victoire bu mu jugee di nuyu aussi Mbacké Faye mhm. di ko féliciter aussi bu baax eh, di jox ay eh, encouragement donc di sante bépp kilifa diine ak bépp kilifa aada ci réew mi di nuyu ñaar sama copain yi ma àndal muy jeego Lat Diop ak Baye di ziar ñëpp di nuyu équipe yaram aar bi yëpp aussi di leen remercier bu baax a baax comme ni ko aussi ñu jëm ci gala bu mag allah le 26 mai mm-hmm. ñu natti sargal bu baax sunu sunu papa mm-hmm. dubales Less di ñaan yàlla xare ko àjjana te ko allah mm-hmm. le 26 mai bu soobee yàlla incha allah waaw ngeen nar a le 26 juin ci gala bu mag euh, sargal si Double Less yàlla na yàlla nangu ñaan yi euh, Gris 2 ak ki nga doomu lan moo tax suwaawu Gris doomu tàng combat bu jafewoon ngeen fexe ba taxawal ko loolu Bakary bu ngeen def ba réussir boobu mission. waaw comme ni nga ko waxee combat bu jafe woon la euh, du combat bu jafe je diir mais ñaari mbër la yoo xam ne dañoo naqaree wutal adversaire ñaari mbër yu naqaree wutal adversaire la mhm. donc ñoom ñu ñuy gis ñooñ duñ leen duñ leen duñ leen bëgg déjà mhm. donc euh, ñu xool xam ni ñoom ñaar aussi combat bu jaadu la. peut-être gisante wuñu woon sax. carrément mais au dernier moment la ñuy xam ni carrément ñoom si bopp ñoom seen bopp ci la ñuy xam ne ñoom ñaar seen combat. dafa jaadu dafa jaadu quoi dafa woy mhm. donc loolu la donc euh, ñu dem ci nag ak philosophie. Mhm. ñoom aussi seeni i manager aussi ñu yombal ñu liggéey bi bu baax a baax aussi. Mhm. moo tax euh, ci ñaar u ñetti fan ñu ñu taxawal ko macha allah. ngeen taxawal ko waaw. macha na. entre non de Dangu non cherul trop parce que ñoom ñaar ñëpp dañ ci jàpp ah. hmm. pour dire vrai dama leen di remercier bu baax a baax ñoom ñaar ñëpp dañ ci jàpp muy waa Fass muy waa Songaan Gueye hmm. ñoom ñëpp dañ ci jàpp parce que ñoom dañ ko bëggoon déjà hmm. man it ma bëgg ko ñun won ma ni carrément dañuy ànd liggéey may remercier de passage aussi ku ci mel ni ñaaw manar cew doomu danga ak sunu papa Ibra Mbaye ma leen di remercier bu baax a baax jàpp nañu ci liggéey bu baax. Mm-hmm. te su ma nee jàpp nañ ci liggéey bi du waxaale rek jël avance rek nga dem toog mm-hmm. donc chaque jour damay déggante ak ñoom. Mm-hmm. ñuy liggéey na la ñuy def ba. journée bi réussir waaw gala bi réussir quoi. moo tax may gën a appuyer aussi loolu di leen sant di leen gërëm. soo nee gala ci maanaam ci bés bi kon yeneen combat yi yan ñoo fay xaar amateur yi ay combat ay ay ay yu mag. waaw euh, combat spécial bi dina dox ci diggante ki nga Jackson. Jackson 2. Jackson 2 ak ñagas numéro 2. mooy combat spécial ñagas numéro 2 bu bawal. waaw. donc Ibo Ibo bu Kër Mbay Fall dina ci tase ki nga xam ne réparé. bu Géejawaay. waaw donc Benteñe bu Faas aussi dina ci daje ki nga Lo Karim. xam bawal war ci daje ki nga xam ne confiance. Mm-hmm. Petit Fall bu écurie Kaay baax Tëngéej. Mm-hmm. war ci daje ki nga réew mi réew ya. hmm. mi hmm. eh, hmm. eh, bu ñàkk waram waaye për ga aussi dina ci ba dina ci bëri ki nga xam ne mooy aada numéro 2 njaga bu Fass war ci bëri petit Modlo réparé bu ndaw aussi war ci bëri ki nga xam ne papa yadd bu ndaw donc mu nekk journée bu bu am solo ñu ci ñu ci ñu ci sargal sunu sunu sunu papa ah mu nekk nit koo xam ne dafa marqué empreinte ci di ci woo amateur di wax ni journée bi jagleel nañ ko askanu lamb parce que Doubalès moom. Mhm. buñ ko Doubalesu lamb la tuddee waa bis bu mel ni mhm. sargal nañu lamb yëpp. allah. Mhm. waaw am masya solo allah sargal Doubalès xam naa dinañ ci ñëwaat grand sal yaakaar naa journée bi gis nga combat yi ci bootal ah. Gris 2 doomu dàngu rek lamb la sans compter liñ ci topp liñ tegaat ci ginnaaw. dëgg la combat bu ya, neex ci lamb waaw waaw moo koy war a jiitu moo koy war a moo ko war a jiitu moo ko jiitu ci làmb moo war a jiitu ci làmb waaw Gris 2 comme Alioune li mu wax rek sànq moom ak Coen si mhm. xëy na làmb tëral yi ba Coen si bëreek moom mais bu làmbam doxoon normal du bëreek moom mais si Kelle doomu dàngu ak kii combat boo xam ne Babacar mhm. ñaari mbër la yoo xam ne gis naa ne dañu bëgg xeex Gris ak doomu dàngu dañu bëgg xeex te doomu dàngu am na dugaat boo xam ne mhm. mbër yi ko jël yëpp yaakaar naa dañoo fori baatu. ah waaw bu fekkee yaa ngi suivre ay combat ah bu baax a baax. bari na ay gars mu dóor mi daanu. wallaay donc combat la ah, boo xam ne différence de poids di sant yàlla rek mais loolu yàqul dara ci làmb. Mhm. borom poids moom da ngay xam nooy bëreek moom rek. Mhm. en tout cas combat bu neex ngeen tëgg. incha allah combat bu neex ngeen tëgg boo xamante ne ne lu ne mënu ci am. su mhm. Gris 2 la boo xam ne moom bu waat bi soufflé du la may jàmm. te doomu dàngu tamit ku ne xam na ne xeexkat la. donc nag kon combat la boo xam ne Babacar. ku bëgg a gis combat bu metti bu tàng jër mhm. dimanche na nga dem seetaani làmb mais sànq da nga ne maanaam dañoo bëgg xeex ñoom ñaar sax si mais mais loolu la ñuy bëree est ce que combat bi ñoom ñaar maanaam dañ ci war a woote xeex ñoom ñaar ñëpp wala non non dañ ci war a xeex ñoom ñaar ñoom ñaar dañ ci war a dañ a xeex mais xool ni ñuy xeex tamit mhm. bu fekkee côté doomu dàngu la mhm. doomu dàngu moom war na gën a utiliser bëre bi ko xeex bi combat bi bu doon yow la da ciy bëre waa da ciy bëre du ci xeex en plus bëre bi na fexe ba waa bi mu jàpp. te te xañ Gris 2. poids lourd poids léger. Mm. léger bi nay jàpp ngeen waa ji bañ poids bu jàpp. Babacar. waaw poids lourd bu jàppee ngemam. Mm. nga jàpp sa ngem mu jàpp ngemam. nga bëgg a maîtriser poids bi ci kaw. Mm-hmm. loolu dalay lay sonal. loolu da sonal. Mm. parce que boo ko bu jàppee nga jàpp pour nga manipuler ko koo yemal doole sax nga jàpp dama ne daal booy bëre sax essayer di jàpp xañ waa ji mu jàpp sa ngeen waaw waaw daan naa dégg benn mag di ko wax ne ma day mbër day nay ci yaramam dama lay jox ay exemple rek mhm. maam njambaar nu mu toll mhm. bu ma koy daan bu ma bàyyi mu jàpp est-ce que dinaa ko daan xoogu ma ko de Mohamed Ali est-ce que dinaa ko daan <laughs> Ndiaga Diop est-ce que dinaa ko daan fu ma ci ëpp am waaw ñoo la ëpp moom frère bërëkat même sa morom sax del essayer jàpp xañ ko mu jàpp sa ngeen mhm. mburu bërëkat da ngay jàpp xañ waa ji mu jàpp pour nga mën a def li ngay bëgg. mais booy bàyyi mu jàpp doomu dàngu diggaluma ko mu bàyyi Gris 2 mu jàpp. Gris 2 tamit mhm. diggaluma ko muy bëri ci air bi noonu saa mu jàpp poids lourd du bëri te jàpp wóorul mhm. parce que en général boo fàqee dem pour nga ñëwaat. doo dellu si waat kon looy dafa war a wóor. daa war a téye ba pare mhm. doo ko bëri. mais xam naa ne force Babacar. balaa bëree am. xeex dina am dinañu xeex moom dinañu xeex moom. waaw loolu de xalaat naa ah Alioune Seye Gris 2 doomu dàngu nga yaakaar nañ bëri duñu xeex waaw Babacar waaw combat bu neex la. di mhm. nuyu Bakary sama frère wax dëgg yàlla. Mhm. yaaram aar. Mhm. maa ngi koy nuyu di ko ñaanal suñu borom kàttanal ko journée bii nii réussite totale ci barke Seydina Mohamed. waaw ko mën na ko. dëgg yàlla ku nit ku yaru la ku baax ku joxe cër la. loolu journée bi neex na macha allah. yàlla na si yàlla teg loxo mais combat bu neex la. Hmm. comme ni ko père waxee rek ñaari droite yi jàkkaarloo la. Hmm. Hmm. te kee droite yi fausse fausse kii la. fausse kii la fausse garde la presque ndax moom droite lay teg mais gauche bi moo moom la gën a xeexee doomu daangu. doomu daangu kon combat combat bu neex la daal. combat bu neex dañuy jàkkaarloo ñoom ñaar. dañuy jàkkaarloo waaw. kon gëm nga ne jàkkaarloo ñaari kii faaw ñu. doonante non xeex moom mënut a mën see ñàkk moom. bala ñoo bëri après dañuy mujjee bëri xaw ma mais moom la ñuy ibbee moom. waaw xeex bi ci kaw ku mu avantage waaw ci Gris 2 la avantage ndax Gris moo suut hmm. relance. ci kaw hmm. waaw moom moo suut relance ci kaw. waaw bu ñu dawee jàppante xeex foofu. waaw foofu dañuy dañuy dañuy wuure rek. wuure fay waaw ndax ñoom ñaar moo xawma moo dàq bëri ah. moom bu ñu jàppante moom dañuy wuure rek. te la mu yar gañ. ak sa na solo Mbacke yow tam ah. ban jàng nga ci comme ñoom lu ñu war ñoom bu ñu waxee ba pare ñun moom mënuñu cee teg dara <laughs> ko xam nga doomu daal. waaw ay champion la ñoom ñaar ñëpp. waaw champion la Gris 2 la doomu daang champion la. Mhm. père mi ngi doon Alioune loolu la wax ne doomu daang am na gauche boo xam ne xam na. Mhm. ku mu dóor moom mooy loolu te moom tamit loxo bi am na force. waaw mhm. ah, Gris 2 moom xëy na dóoragul mbër mu daanu quoi. waaw mais Alioune Seye moo ay kaw combat moom mënul ñàkk xeex. ñoom ñaar waaw ñaar dañuy xeex quoi. bala ñoo bëree. waaw bala ñoo bëree. mais tamit doomu daangu man bu doon maanaam du ma jàpp di déglu même bu ma jàppee tamit damay defee ay prise de di ko fàq di ko kii xam nga poids lourd. waaw doo taxaw sur place quoi waaw poids doo bëree mu sur poivre da nga koy fàq di ko kii di ko kii di ko. manipuler ba mu kii. fexe mu jóg daal oyof. waaw. dem hmm. moom bu jàppee sa ngem nga jàpp sa ngem fii ba suba da ngeen di buuxante rek te moom mooy ëpp avantage. Hmm. ok waaw ah, da ngay dem ba doo mën a jàpp. Hmm. macha allah am na solo mais euh, grand Sall Alioune Seye